ci yàlla te kontaan boo ne boo ne sëñ Touba laa gëm sëñ Mountakha ne bàyyi leen nangam yow da nga ko war a jaare rek bàyyi ko dootoo ci dellu sant ci yàlla bu baax a baax a baax gën cee santaat sëriñ sëriñ Mountakha ndax dëkk bii dëkk sëriñ Touba la kon yaakaar naa li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci dëkkam bii lépp lu mu bëgg nan ko ko defal lépp loo xam ne bañ na ko ñu bañ ko fee def te xam ne nag suñ njariñ dong la nag suñ njariñ kese la oto bi may dugg bi may ñëw ci biir ma ne leen ku fa yóbbu fant wala ay mees loo fa gis xam ne yaa ko teg sa bopp boo gëmee sëñ Touba lépp luñ tere danga ko war a bàyyi te boo ñibbee nga ne ca ndax lu baax doo na ñëw naa Touba rek ñibbi naa dellu ci amul benn sens. nit gan ñi nga xam ne ñoo fi ñëw respecté nañ ndigal yi ndax wax dëgg yàlla lépp lu ñu tere ci dëkk bi wax dëgg yàlla yombal nañu liggéey bi ndax Baye Fall yi wax dëgg yàlla fi ne nii ñoom ñëpp ñu ngi circulé ci devant yi dañoo monté comme ñu police yi monté waaye nag wax dëgg yàlla tit ah ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi tegu ci saatal mustaqim rek